raxasum suñu xol jéem a ànd yàlla du nangu suñuy ñaan te yàlla mu waxtaan la tanazaru fa tafshalu wa tazhaba riihukum bàyyi leen xëccoo ngeen xëccoo teqali ko li ñuy xëccoo échec rek xëccoo ba gis échec échec la ciy topp ku ne xam ne yonent bi wax ni ah ndimbal yàlla kat mu ngi ci ngeen nekk benn nag kon nag di occasion la ñu lancé baatu unité ci l'islam bi d'abord mbokki diine yëpp nañu joxante loxo te xam ni kenn ku ne yàlla moo amee si mbir la lay jëriñ moo la koy jox la lay ñàkk moo la koy xañ waaye du sa morom nga wóolu sa morom mu wóolu la bañal la dara ci sa xol mu bañal la dara ci xolam ngeen joxante loxo foofu li ngeen fa wax yàlla nangu loolu jot na ñu amaat ko ci Sénégal amoon nag fi ma bu diine yépp di ànd di gise kenn ku ne nangu ngëneel ba soo yàlla def ci sa moroom te def ko ci yow ñu di ko waxtaane jay di ca bokk wax juré du ca bokk euh, dama amoon suma benn yaay ju ndaw sama rakk yaay la woon ñu ñëpp moo nu yar fii ci kër gi donc sama ndey ñu bokk lépp muy jógee Saalum di ñëw moom la ànd ak fii te suma ndey génn àdduna it mooy sunu yaay soxna ñi daan caw rahmatullahi aleyha daanaa def suma ma ko nuyjee suba léeg-léeg danaa koy nuyjee dugg néegam nag toog waxtaan moom tuuti moo ko tàggoo di dem mu ne Abdou yaa ngi dem ma ne mu ne wattul jeykat yi de waaw ma ah. wee mu ne ma Sénégal ma ne waaw mu ne ma mën nañoo jey ganaar ba muy mbëkkee ganaar nag mu mbëkkee léegi roso dam waaw su ko defee bañ geesu yooyu mag ñi fi nekkoon mësuñoo nangu ku leen jey ku leen flatté yaa gën sa maam yaa gën sa baay xam nga dañ lay nax li nga am ba ñu di la wax yaa leen gën ñoom ñoo ko liggéey yaa gën sa mag refee yëpp nag ñu bàyyi ko ñu dellu rek nag ilal qiyam al axlaaqiya valeur yi diine yi fi nekkoon yu jikko yooyu yëpp ngeen bàyyi xel ngeen yar njaboot yi sa doom yaa ngi koy yóbbu ci jàng yi comme ni ko ministre ministre Abdoulaye ne waxe waaye doo ko toppatoo ñun bu jëkk ñi ñu xamoon sa doom ñetti yaruwaay la am mbedd mi kër gi école bi mbedd mi yàqul école bi mangoo kër gi waxi bi ndax kër gi ndey ji du fi yenn bàyyi bi du fi yenn ku nekk yaa ngi xëy di wuti xaalis koo wax mu ni xaalis xale bu tuuti sax boo ko nee lu xale tuuti tuuti boo ko dee ñaanal sa maam loo koy ñaanal mu ni yaay na am xaalis yàlla nga am xaalis rek affaire bi xale tuuti sax loolu lañ leen jàngal xaalis ndax kenn loolu nga yox ci kër yi suma doom dafa bàyyi tarixa bi dem jàpp beneen tarixa bi ne ko papa booy toog di jëw sa sëriñ ci sa kanamu doom dootu ko doyloo Euh, ay dégaam waxtaane yi nga xamul ak yi nga xamul yëpp ci kanam parce que gis nga ko soxla fajagu ko rek wala wax nga ko laaj nga ko lu mu am dem nag sa doom di dégg loolu bu yàggee dootu ko doy dañu ko lool rek la yéen a koy def mooy am programme yoo xam ne pour yàq xale yi la du pour defar leen am na ci ay daara ñoo xam nañ ko man nañu wax ni daara tël daara tël la muy doxal du yàq xale yi waaye nag ku la laajul doo ko wax ku la doo ko wax su nga demee foofu la jaar pour xale yëpp yàqu ñuy jàng ci école nasaraan yi ñuy jàng ci école diine yi ñuy jàng ci école lislaam yi ñëpp bokk yàqu léegi ah. loolu nag da doon wuti lu baax foofu fa jëlee la musiba jàng kay dañoo bëgg xale bi am lu baax yaru dellu kër bàyyam nekk un professeur wala un grand mathématicien wala ingénieur wala un grand wala boog léegi dellu si kër ga nekk imam bu ñuy roy nekk yeetekat bu yee jullit yi waaw ah, loolu lañ te nga yóbbu ko benn ci école l'islam ji wala nga yóbbu ci école nasaraan yi ndeysaan ñaa ngi gën a bari yàqu gaa ngi gën a bari waaw parce ku tiitu doo nit ku tiitu rek doo nit loolu nag lu koy mënee dindi saafara tuuti mooy na njiit yi ci seen forme di daje di waxtaan état yi bu ñu bàyyi rek sëriñ si ñu xam ñu dara sëriñ si am na bu ñu tax rek ni état yi awu ñu yoon euh, ah, nangam nangam ko wax ñu nangam dëgg la ci xel ñoom ñëpp dañu war a boole seen kàddu di seet yoon bu baax man ci tig réew yi réew yi mën a dem loolu la sëriñ bi wax bu jëkk dañ daan diisoo kilifa diine yi ñu am xalaat ñoom itam jox leen ko dañuy wax ni benn buur bu ñuy wax Blaise Diagne ci Sénégal njàng ma sax soriwul woon waaye xel ma réyoon na lool yoo fekkee Seydi bi man dama ñëw seet si leen xamoon ni yaa ngi dund li may dégg sa tur nii la waxtaane yëpp dama defe ne woon ku fi jóge nga ñu koy waxtaane rek Maodo ni ko déedéet maa ngi dund de mi ngi ànd ak góor gi Xaliilu Gay ca timis waaw dama bëgg nga ñaanal lii Cheikh Sidiya Baba njiit lu mag la woon ci tariqatul qaadiriya mu ni kon li mu defaloon feder ba ba mu yilif Afrique loolu laa bëgg nga defal ma ko mag ñi dañ daan bañ cër boo leen jox ñu delloo ko mu ni ko ah loolu dama ko mën Cheikh Sidiya xonq feder ba xonq man mu ñuul nga ñuul dama ko man ma ni ko góor gi yaa ko ko daq ba doon dox ci mbedd ba sa cetu dàll fa kassaloo morsu may bu ñuul nga sëgg far ko fecc ko fekk muy fase nga fecc ko fekk jamaa ca biir danga naan for naa may walla for naa jamaa bee su ko wax loolu mu hmm. ni ko dama naan for naa jamaa ko noonu nga mel ñuul nga ci kaw waaye xonq nga ci biir mu jox ko benn condition rek su fekkee doo xeex lislaam de dana la ñaan mu ne ko lislaam ci laa jëkk bi lii daf ma daf rek mu ne ko waa ah, demal naa la ñaan mu dem tuwaab la doon xëccoo te boobu tubaab yi dañuy ñàng te ñëw moom réew waaye mooy jël affaire ba teg dem yoon bàyyeetu ko nag lu xew mu ñëw ni ko fu may jaar mu amee dafa ñëw ni ko am naa nu may def ni ko na ko def liggéey te bu ko def nguur soo ko defee liggéey daal ci jëriñu senegal jëriñu soo ko defee nguur yow rek yaa koy naan Sénégal ba ñaa ko daanu ci sa te doo leen attan mu ni ko ak lan mu ko bu ko xam yow rek man ko yow rek def ko yow rek hmm. waaw ñooñu loolu lañ daan def bind dégg naa daana wax ni lay gouvernement français si ñu nangu mu former leen benn gouvernement danga leen former gouvernement bu dootul tas ila yawmil qiyaamati moom El Hadj Malick ko daan wax. gouvernement France bi ñu nangu woon mu formé leen benn gouvernement daan leen formé gouvernement boo xam ne dootul tas ila yawmal qiyaamah. te defe na kon ñi yore diine ji dañuy waxante ñu yore nguur yi waaye itam nag bokk na ci lii tax ki yore nguur yi du la naw ah ñu ni ko sëriñ si di waaye nangam nangam ku. am xel la ku am xam-xam la fonk diine la ngeen daje yéen ñaar nga wax a wax ba àggal ni ko waaye nag soxla won naa naan bu soxla toppee rek waxal ak wax ko jigéen ji mun ma déedéet dama bëgg a dem rek ci anam gu sell seetal boobu jàllug rek mm. amante na ko ndaw si te gisewuñ te loolu ñëpp mën nañ cee dëgg xam ne lu bari bari ci àdduna mu ni ne ko déedéet dama bëgg dem rek te bëgg a dem ci anam bu sel mu ni ma ne ko na wut leneen yem fa nag sans commentaire rek ne ko na wut leneen beneen nit jógee wakaam ñëw laaj kooku ci ëllëg si mu ni ko su dalee sa xel rek keneen ñëw jóge Thiès laaj ko ko mu ne ah gis naa nit ñi xewal ko de yàpp ñu ko jëw nag ñun njaboot bi ah, benn réponse benn question ñetti laaj ko te kenn bokk jeeg sa morom réponse ni waaw parce que ñu bari dem na ci makka ñu baree ngi ciy waaj a dem makka soo taxawee ni dafa xaraam yow yaa tas réew mi ni ma di dawal nit ñi safara ba yóbbu leen ci nag jaru ko te man àjjana ak safara nekkul sama loxo te loxo yàlla la nekk te yàlla yërmandeem yaatu na nañ bàyyi noonu rek ndax su ma taxawee ni xaraam na ak taalibe yi ni seen làmmiñ foroxe noonu la ko fekkeroon ñii aw yoonu Ndakaar ñii aw yoonu Ndar ñii aw noonu yoonu Louga ñii aw yoonu yoonu Diourbel waaw ah sëñ baaw ko nee bàyyi leen te dem màkk ku ko defeti nangam ndax lii la ma ni ñi ci demoon màkk jaaxle ñi ci demagul tey pare pare dem jaaxle werante wu ni koro lu ciy mujj waaye bu leen nu rey daqul jàng nit ñi mais lu cay jóge ay copain mooy doon bu tëdd nit ñi di leen ko dabal ba fu leen ti dugal nag ndax polémique bu dul jeex ak copain yuy takk jaru ko te yàlla yërmandeem yàlla yoo xamoo ko yàlla yóbbu safara ku muy yóbbu àjjana nañ bàyyi noonu rek man leen gis ngeen ku toggoo ci si xikma doo mën a agir noonu doomam tontoon muy jàll bu am solo ñuy di ko wéttali ko toujours ci suñu penc yi un million un million ah, ah, c'est un peu wala nga leb dix millions ñu dina la payu cent millions waaw ah. loolu dafa mat a seet mm-hmm. ñu ngi koy defee ndànk-ndànk kooku moo tax mu ni Euh, banque bi bukki la fournisseur bi bukki la moom tam noonu lay def xale bi mu ni clientèle bi ñëpp duñu fay sénégalais maye junni moo ko a fay téeméer ndax fay bor tuyaaba ju mag def ca nekk boo ko dee def mala yi sax dañ lay xool di wax est jën yi ci géej gi naan est-ce que picc yi ci gaal gi naan est-ce que mi wëllëre